juróom ñett fukk ak ñett daan nañu Yeesu asalaamaaleykum mbokk yi nuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub. ci sunu tukki ci mbind mu sel mi gisoon nanu ni yonent yàlla yépp yëgle woon pexe mi yàlla rabatoon ngir musal bàkkaarkat yi ci mbugal gu dul jeex. lan mooy pexe mucc moomu. mooy deewuk almasi bi ca bant ba yonent yàlla yépp seede nañu ne fokk almasi bu jub bi dee tuur deretam ngir ñi di gàddul nu sunu mbugalu bàkkaar mel ni xarum tabaski mu sikkul te wàññeekuwul ci pexe moomu kese lanu yàlla mën a baale sunuy bàkkaar te ba tey dëkk ci njubteem léegi nag ci sunu gëstu yu chronologique ci mbind mu sell mi mbind yonent yi ñu ngi jege nettali bu jëkk ci maana di nettale bu historique jëm ci deewuk yéesu Kirist ak ndekkiteem kon nag ndegam neex na yàlla tey ak ci njàng yi di ñëw dinañu jëm kanam ci linjiil ba gis ni almasi bi Yesu jébbale bakkanam dee ngir gàddu bàkkaaru nit ñu bare ci njàng mi weesu gisoon nanu ni sëriñ su mag sa jënde woon ab workot mu yóbbu leen fa yeesoo ki taalibeem nekkoon noonu gisoon nanu ni ñu jàppe yeesu yeew ko yóbbu ko doy na waar de lu taxoon yéesu mu fees dell ak doole yàlla bàyyi ay noonam ñu jàpp ko dafa leen bàyyi ñu jàpp ko ngir amal waxi yonent yi yëgle ne faw almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan ba ngir képp ku ko gëm yàlla balla say bàkkaar léegi nag nanu wey ci linjiil ba gis li xewoon ci guddi gu lëndëm googu gannaaw ba kilifay diine ya jàppee yeesu mbind mi nee ñi jàpp yéesu yóbbu ko ci sëriñ bu mag bi te foofa la sëriñ su mag si njiit yi ak xutbakat yi yépp dajaloo piyeer nag topp ko fu sore ba ci ëttu sëriñ bu mag bi mu toog fa ak alkaati yi di jaaru ci taal bi noonu sëriñ su mag si ak kuréelu atekat yi yépp di wut ku mëna seede lu daan yéesu ba ñu man koo reylu waaye gisuñu kenn teewul sax na fekk ñu bare ñëw seede ci yéesu lu dul dëgg waaye seen seede ànduñu ba mujj na fekk taxaw seede ci moom naan nun daal dégg nanu mu ne dina toj kër yàlla gi loxoy nit liggéey tabax ci ñetti fan geneen gu nit liggéeyul waaye ba tey seeni wax ànduñu ci kaw loolu sëriñ bu mag bi taxaw ci seen kanam ne yéesu doo tontu lu la nit ñi di jiiñ waaye yeesu tontuwul dara mu ne cell sëriñ bu mag bi dellu nag ne ko ndax yaa di almasi bi doomu yàlla ju tedd ji yeesu tontu ko moom laa te dingeen gis doomu nit ki toog ci ndeyjooru aji kàttan ji di ñëw ci niiri asamaan bi ko sëriñ bu mag bi déggee nag mu daldi mer ba xotti ay yërem naan weddi na yàlla lu nuy doyati seeda lu ngeen ci xalaat noonu ñépp teg ko dee ci kaw loolu ñu daldi tëfli ci moom takk ay bëtam di ko dóor ay kurfeñ naan ko yow wax nu ci kàddug yàlla ku la dóor ba noppi alkaati teeru ko ak ay pes piyeer nag ma nga toogoon ci ëtt bi féete suuf noonu benn mbindaanu sëriñ bu mag bi romb fa mu gis piyeer di jaaru xool ko jàkk naan yow mi itam àndoon nga ak yeesum nasaret moomu waaye piyeer weddu ko naan xaw ma li ngay wax dégguma ci dara mu daldi génn dem ca buntu kër ga foofa nag mbindaan ma gisaat ko mu ne ñi fa taxaw waa ji ci ñoom la bokk waaye Pierre weddiwaat ko nes tuuti ñi fa taxaw ne Pierre yow mii de ci lu wóor bokk nga ci nde waa Galile nga waaye Pierre daldi giñ ak a waat naan xawma nit ki ngay wax ci saa si ganaar sab ñaareelu yoon noonu Pierre fàttali ko li ko Yeesu wax bala ganaara sab ñaari yoon dinga ma weddi ñetti yoon mu daldi jooy jooy yu metti ci subateel nag sëriñ su mag sépp ak njiiti xeet wa gise ngir fexe reylu yéesu ñu yeew ko yóbbu ko jëbal ko pilaat boroom réew ma bi nga xamee ne yudaa mi waroon yéesu gis na ne daan nañu ko mu am naqaru xol mu dem nag ca sëriñ su mag sa ak njiit ya delloo leen fanweeri poseti xaalis ya ne am na bàkkaar ci lima ma wor nit ku tooñul ngir ñu rey ko ñu tontu ko ne lu ci sunu yoon loolu yaa ko yëg noonu yuda sànni xaalis ba ca kër yàlla ga jóge fa dem takk buum ci baatam xaru bi loolu wéyee ñu jële yéesu ca kayif kenn ci ñaari sëriñ yu mag yi yóbbu ko ca kër boroom réew ma ci waxtu njël la woon waaye yawut ya yéeguñu ca taaxum kaw ma dañoo bañoon taq sobe ngir mën a lekk ca ñamu màggalu jégi ba loolo tax pilaat boroom réew ma génn dajeek ñoom mu laaj leen ne lu ngeen di jiiñ waa ji ñu tontu ko ne bu deful woon lu bon duñu la ko jébbal si pilaat ne leen jël leen ko yéen te àtte ko ci seen yoon yawut yi ne ko yoon mayunu nu àtte nit teg ko dee noonu la kàddug yeesu gi ame ci limu mu misaaloon ni mu wara faatoo ganaaw loolu pilaat duggaat ca taaxum kawma ma woo yeesu ko ndax yaa buur buuru yawut yi yeesu tontu ko ne ndax yaa ko xalaat wax ko am dañu la ko xelal ci man pilaat na ko mbaa xalaatuloo ne man yawut la sa xeet ak sëriñ su mag si ñoo ma la lan nga def yeesu tontu ko sama kilifteef nekkul ci àddina bu sama kilifteef nekkoon ci àddina sama surga yi dinañu xeex ngir bañ ñu jébbal ma yawut yi waaye sama kilifteef nekkul ci àddina pilaat ne ko kon yow buur nga yeesu tontu ko wax nga ko buur laa lii moo tax ma juddu ñëw àddina ngir wax dëgg gi ku bokk ci dëgg gi dina nangu li may wax pilaat laaj ko ne luy dëgg gi bi mu waxee loolu ba noppi pilaat daldi génnaat jëm ca yawut ya ne leen gisuma ci moom genn tooñ seen aada laaj na ma bàyyi leen kenn saa suñuy def màggalu teg bi xanaa ma bàyyi leen buuru yawut yi noonu ñu daldi yuuxuwaat déedéet waxunu kii barabaas lanu wax fekk barabaas moomu taskatu réew la woon noonu pilaat ne sëriñ su mag sa ak mbooloo ma gisuma genn tooñ ci nit kii waaye ñu sax ci seeni wax naan mu ngi jógloo mbooloo mi di jàngale ci réewum yawut ya mépp li ko dale ca galile ba fii bi pilaat yége baat yooyu mu laaj ne ndax nit ki galile la dëkk bi mu yégee ne yeesu mu ngi nekk ci diwaan bi erod yilif mu yónnee ko erod mi nekkoon ca jamono joojo ci yerusalem bi erod gisee yeesu mu am mbég mu rëy bu yàgg ba tey dafa ko bëggoon a gis ndaxte déggoon na ñuy wax ci ay mbiram te yaakaaroon na ne dina ko gis mu def kéemaan noonu mu laaj ko ay laaj yu bare waaye yeesu tontuwul dara sëriñ su mag sa ak xutbakat yaa nga fa woon di ko jiiñ bu metti noonu erod ak ay xarekatam toroxal yeesu di ko ñaawal gannaaw loolu mu solal ko mbubb mu rafet deloo ko pilaat erod ak pilaat dañoo bañante woon bu jëkk waaye ci bés booba doon nañu ay xarit pilaat daldi woo sëriñ su mag sa njiit ya ak mbooloom yawut ya ne leen indil ngeen ma nit ki ne ma day jàddloo yoon mbooloo mi léegi nag man mi laaj naa ko ci seen kanam waaye gisuma tooñ ci moom ak li ngeen koy jiiñ lépp erod itam gisul tooñ gu mu def ndegam yónneewaat nanu ko nit ki deful genn tooñ gu jar ñu koy rey kon nag dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko mu dem waaye ñu bokk yuuxu ñoom ñépp naan reyal nit ki te bàyyi barabaas dañoo tëjoon barabaas ndaxte dafa jéem a tas dëkk ba te rey nit pilaat waxaat ak mbooloo ma ndaxte dafa bëggoon bàyyi yéesu waaye ñu yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee pilaat na leen ñetteel bi yoon lu tax gan tooñ la def gisuma ci moom dara lu jar dee kon dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko noonu pilaat joxe ndigal ñu dóor yéesu ay yar xarekat ya ràbb kaalak dég teg ko ci bopp yeesu solal ko mbubum xarekat mu xonq ñu di ko jegeñ si di ko pes naan ko nuyu nanu la yow buur yawut yi ba noppi ñu daldi tëfli ci kawam fab bantu xat dóor ko ci boppam noonu pilaat génnaat ne leen gis ngeen maa ngi leen koy indil ci biti ngir ngeen xam ne waa ji gisuma ci moom genn tooñ yeesu nag génn tego mbubum xarekat mu xonq mi ak kaalag dëg gi pilaat it ne leen waajaa ngi waaye bi ñu ko gisee sëriñ su mag sa ak alkaati ya di yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ne leen jël leen ko yéen daaj ko ci bant ndaxte gisuma ci moom genn tooñ waaye yawut yi tontu ko ne am na nu aw yoon te ci yoon woowu war na dee ndaxte teg na boppam doomu yàlla bi palaat déggee wax cooju dafa gën a tiit dugg ca taax ma daldi ne yeesu foo jóge waaye yeesu tontuwu ko pilaat ne ko man ngay bañ a waxal xanaa xamuloo ne am na sañ-sañu bàyyi la te am na it sañ-sañu daaj la ci bant yeesu tontu ko ne amuloo benn sañ-sañ ci man sudul bi la yàlla jox looloo tax ba ki ma jébbal ci say loxo am na bàkkaar bi gën a rëy booba nag le pilaat doon fexe bàyyi yeesu waaye yawut ya di yooxu naan boo bàyyee nit kii doo xaritu buur bi sesaar nit ku teg boppam buur noonub sesaar la bi pilaat déggee loolu te mu xam ne du ci mën dara fekk na sax yëngu-yëngu bi gën a am doole mu daldi fab ndox raxas ay loxoom ci kanamu mbooloo ma ne leen seet naa ci deretu nit ku jub kii nu ngeen xam def leen ko ñépp tontu ko na deretam dal ci sunu kaw ak ci sunu kaw njaboot noonu pilaat mi wuta neex mbooloo ma bàyyi leen reykat bi di barabaas jébbal leen yeesu ngir ñu daaj ko ci bant kon nag mbokki déglukat yi dégg nañu tey ni sunuy maam amale woon waxi yonent yi ci li ñu xeeb almasi bu sell bi te jóg ba daan ko ngir mu dee waaw lu taxoon nag ñu daan ko ndaxte mënuñu woon a dékku leeru dëgg gi yéesu waxoon na leen dëgg gi te dëgg googu weeroon na seeni naafeq ak seeni ñaaw ñaawteef yéesu moom ci boppam moo doon dëgg gi leer gi ñëw na ci àddina waaye nit ñi lëndëm gi lañu taamu ndax seeni jëf yu bon te ndegam doomu aadama yi mënuñu woon a dékku leer gi kon amuñu woon meneen pexe mu dul fexi fay ko moom la mbind mi wax bi mu naan leer gi feeñ na ci biir lëndëm gi te lëndëm gi jàpp ko kenn ci njiiti àddina si xamu ko suñu ko xamoon kon duñu rey buurub ndam bi ci bant bi borom bi yéesu kirist ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaare la ko ci moom te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñam nanguwuñu ko teewul ñi ko nangu te gëm ci turam may na leen ñu am sañ-sañu nekk doomi yàlla amin mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi danu fas yéene tasewaat ak yéen nag ci njàng mi ñëw ndegam neex na yàlla ngir gis ni bàkkaarkat yi amale woon li yonent yàlla daawuda bindoon ci sabuur ci mbirum almasi bi bi mu naan ñu bëtt samay loxo ak samay tànk su fekkee ne am ngeen laaj ci lu nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yonent yàlla Esayi yëgle woon bu yàgg ci mbirum coono yi almasi bi bi mu naan fitnaal nañu ko mu dékku ko te bu ca wax mel ni xar mu ñuy rend ji ni mburtu lu ci kanami watkat mu ne cel